ba euh, dox diggante ñaari député yu PUR ak euh, Ami Ndiaye euh, bi dëkk ñibbi ñu gën ko xam ci Ami Ndiaye ñibbi xeex nag dugguleet ci assemblée nationale waaye bii yaakaar naa ne am na lu mu tàmbalee jur te itam jar na ñi xam assemblée yàgg ci mën a wax mën a artu mais itam joxoñ peut-être sax ay yoon yoo xam ne mun nañu ci jaar ba indi saafara ndax jàmm gën leneen Maître Touré ñu ngi lay nuyu di am mbégte dalalaat la ci mi FM da rawatin ak démb ak tey. Euh, di rafetlu jotaay bi parce que du première fois chaque fois mu am loo xamante ne nii day jëmale Sénégal wala mu nekk danger da ngeen ciy wax gëstu ko seet ñi nga xamante ci xam nañ ci mën ci wax nga interpeller leen loolu moo tax nag euh, ma lay féliciter di la remercier ak confiance bi nga am ci nit ki mu nekk loo xamante ni rafetlu naa ko trop trop trop jërëjëf yooyu itam ñu lay gërëm si disponibilité bi alors ni ma ko waxee Me Touré assemblée nationale xeex moom du fa guleen euh, daanaka parlement yëpp sax ci àdduna bi dañuy faral di gis ñu fay ñu fay xeex mais euh, Sénégal particulièrement moom dañ cee ràññeeku lool lool euh, bëri na fi ay législature yoo xam ne xeex fësoon na ci ñu taxaw déjà ci yéen seen législature 93 98 est-ce que fit na diggante ay député nemmeeku woon nga ko si wala ndax dund nga ko Euh, temps boobu nag yàlla dafa defoon euh, ñi doon dem assemblée nationale euh, ay boroomi xam-xam lañu. Iba Der Thiam ña nga fa woon man mii di la wax ak yow nekk expert nekk yor ay ndomba tànk buñ daan waxtaan dañ daan waxtaan waxtaan woo xamante ni day jëmale réew mi kanam. mës naa sax am benn jour ñu may xalaatal ñooñu may waxtaan ak ñoom. ma ne jour boobu armée bi lañ doon woteel budget waa parti socialiste daal ne affaire armée kenn du ci wax leen du am débat man ma ne leen loolu mënul ne xam nga ñun tey jii dëgg la armée bi ñu yor dafa war a aar réew mi waaye nu wute na ak yeneen armée yeneen dëkk yu développé yi ñun dañu war a nekk armée boo xam ne te ñuy day aar réew mi ba pare mu nekk armée de développement ñu ne de armée de développement ma ne que armée bi ñu ngi defar ay tali ñu ngi defar ay pont ñu ngi defar lu ne pourquoi armée boobu duñ ko jox ay moyen mu bokk ci li nga xamante ni mooy appel d'offre yu mag yi am nañu ingénieur am nañu capacité ñu mën a liggéey liggéey boo xamante ne nii mu bokk ci développement dëkk bi du tee seen mission principal duñ ci wàcc muy lépp loo xamante ne nii dëkk bi menacé wu na sécurité ak yooyu ñu mën ko assurer kon boog armée de développement mu nekk un débat intéressant ñëpp apprécier wax ji façon débat yooyu lañ doon wax man sagam yàlla dafa def ma euh, spécialiser wu ci lu bokk ci transport multimodal aérien maritime te yooyu problème yi dul jeex la taxi yaa ngi fii kërti kërti et tout ça ba situt bi nga xamante ni ñu ngi ko doon def foofu suñu période dañ ko signé ba finalement euh, euh, bi ñu demee ba nga xamante ni situation bi kii na yu bari yoo xam ne day développé dëkk bi dañ ciy discuter sans problème donc ay affaire u saagante ak xuloo dafa nekk loo xamante ni nii euh, nekkul woon ci suñu bopp te d'ailleurs sax Sénégal boo ko gisee dañu respecté mag mm. boo nekkee député am yenn âge mm. même député bi buy jël ainsi de suite dina am noo xam ne da koy doxalee à plus forte raison jigéen. parce que jigéen moom gis nañ ci jigéen yu am maanaa yu am solo waaye vraiment lii mësuñu ko gis te ñaawlu nañ ko. léegi nag dinaa leen wax pour euh, pourquoi euh, euh, lii am parce que Sénégal ki tooñ duñ ci wax dara ki fayu. la ñuy tooñ kii nga xamante ni nag mooy député bi nga xamante dafa wax wax joo xamante dafa dem ba heurté ñoo xamante non seulement député mais dañoo am li ñu gëm loolu mooy li nga xamante ne nii bu amul woon lii du am kon boog mënuñu rek accuser geste bi rafetul dëgg la mais ki nga xamante ni moo provoqué geste bi ñu bàyyi ko en cause loolu mooy li nga xamante ne nii man noonu laa ko gisee ma xamal ni Euh, affaire gëm-gëm ak affaire religion ak affaire parent dafa dëgër képp koo xamante nii nit jóg na ñàkkal teggin sa say sa papa wala sa yaay wala mu wax ko lu ban di ko jaay sa bakkan mm-hmm. loolu funde wala sa sëriñ mm-hmm. léegi nag boo ko defee sa sëriñ euh, réaction bi mm-hmm. ñëpp ñaawlu nañ ko ba ñu wax ko ne ko na nga ñëw euh, retirer la nga waxoon jéggalu mu bañ kon boo kooku luy lu lu lu metti lu yëngu moo ko provoqué moo ko créé léegi en tant que ku jaar assemblée yenn yoon nga gis ne waroon nañ cee aw ba fay coow li te bañ a yegg xëy na sax ci li xew tey waaw aw li li fay coow li d'abord euh, affaire député yi ni mu demee élection yi ñu jël ay situation boo xamante ne nii bëgg a benn liste supprimer beneen liste principal ba nga xam moo waroon jàll ci euh, opposition bi ñu limité ko génne ay affaire euh, nu mu tëddee situation yoo xamante ne nii parrainage beeg yooyu. jaxase carte gi ba. final naa bi foofu la commencé. wax ji foofu la commencé. ba nga xamante ne nii ñooñu dañu ñëw euh, ñi waroon nekk foofu nekkuñu ko ba pare ñoom mu am ay listes différentes ak ainsi de suite yëf yi jaxasoo sur toute la. kon mer la ñu ñëwee. mer la ñu ñëwee. parce que comportement te balaa waaw. Hmm. ministre bi euh, de l' intérieur xëy suba génne benn benn fiche boo xamante ne nii supprimer yi jël et tout cela mu nekk confusion de départ. mooy premier élément deuxième élément bi mooy ñu dem élection sénégalais yi tànn ki nga xamante ne nii. Euh, dina indi équilibre jox temps de député euh, majorité tant de député opposition ba nga xamante ni kenn du mën a def lu la neex loolu déjà Sénégalais yi ñoo ko ñoo ko décidé ah loolu nag bu amee euh, am naa yaakaar ni ba nga xamante ne ni Sénégalais yi tànn nañ dañu war a respecté seen tànnin loolu mooy li nga xamante ne nii bokk na ci li ci nekk troisièmement ñu gis ay député député yoo xamante ne nii mën naa tudd turam ba nga xam naa ko mooy Farba Ngom di défendre euh, fi mu far waaye gis naa ko quand mu am benn comportement boo xamante ne nii waxuma comportement yëpp la de mais bii dama ci identifier loo xamante ni def na ko ma apprécier ko xam nga lan la bi nga xamante ni euh, Barthélémy Dias ñëw na Euh, ñuy voté budget justice lu mu wax euh, Barthélémy Dias dafa dem di génne cassette ba nga xamante ne ministre ba ma ngi ko doon wax naan troisième mandat et tout cela daal di ko non seulement teg ko ci rajo bi ñëpp di ko dégg mu nekk loo xamante ne nii c'était très pertinent léegi nag au lieu ñu nekk di saaga ku mel ni Farba mu nekk fa di saagaanteeg di def leen deful noonu dafa dem moom it dem jëli benn audio boo xamante ne nii Barthélémy Dias waxoon na ko naan troisième quinquennat bi mën na am. Hmm. mu génne ko teg ko. réplique yu mel noonu. loolu yëpp tegu si ay idées ay arguments. Hmm. Hmm. loolu salué nañ ko mu nekk lu kii mais. Euh, am na ay comportement yoo xamante ni man rafetlu ma ko parce que defe naa lépp lu ñuy def rek nañ ko teg ci xam-xam ci respecté ainsi surtout nag ñun ñëpp jigéen nañu ñëw am na yoo xamante ni rafetul jigéen ñi tamit ak noo mënti mel bu mu la dugal ci loo xamante ne nii ëllëg ak ci biir euh, dañ koy réccu parce que comme affaire li ma ko waxee rek affaire parents yi. Mm. ak affaire sëriñ sëriñ nekk na loo xamante lu lu sensible. donc autant que ni warul woon doxale noonu ba tooññee autant que ñëwit ñee seen fayu waruñu woon yëkkati seen loxo dóor. Mm. est-ce que kilifay assemblée yi waruñu woon sumb lu mel ni peut-être ah, médiation. fii euh, foofu laa jëm. Mm. sumb nañ ko. parce que boo gisee groupe parlementaire wàllu euh, Lamine Thiam formé nañu benn groupe pour dox pour yëf yi calme xam nga Lamine Thiam ku ko xam xam ne nit ku dal la nitu jàmm la mu nekk def nañu benn euh, négociation ba finalement ci la ñu nekk dem seeti côté yooyu yëpp ñi ñi doon opposé wo et tout ça pour rafetal ko mm. nu muy mujjee nag xaw ma ko mais am na loo xamante ne nii groupe wàllu ci boppam euh, ak Lamine Thiam def na ko mais fekk na boobu peut-être problème am na ba pare waaw problème am na ba pare parce que ndax président assemblée moom tam jël na li ko yoon may waaw te mooy bi dóor bi amee mu saisir le procureur euh, kooku daal di commencer moom tam enclencher ay ay ay procédure loolu tam problème xam nga aussi problème la boo xamante ne nii defe naa ni bu ñu bàyyi woon expérience waaw mu yem ci piir assemblée expérience rek automatiquement mooy lay permettre dara bu amee nga dal xuloo am na euh, euh, jàppante am na dóorante am na àddina bi yëpp ce n'est pas la première fois mais euh, président assemblée nationale bi tamit mënul toog rek moom it di xoole mu jël ay dispositions yóbbu gisi procureur. est-ce que teelu cee dugal yoon. man defe naa ni kooku manque d'expérience la bu fekkoon nitu. nit bu am expérience la nitu jàmm. ku mel ni Moustapha Niass bu fa nekkoon yaakaar nga ne du doxalee noonu. du doxalee noonu dina leen woo wax ak ñoom ainsi de suite ñëpp retrouvé waaye tey jii non seulement ñu ngi doon critiquer assemblée bi pour la première fois ay ma dugg fa. Mm-hmm. ba pare nag moom mu ñëwati également lii am. ainsi suite te leneen mën na amaat. c'est-à-dire il faut que kàddu yi. Mm-hmm. ñu jéem a xool nag lañ koy rafetale te ki nga xam ne moo jiite ñu teg ko président assemblée nationale bu mu jël rek ay décision yoo xamante ne nii kumba am ndey ak kumba amul ndey parce que député yëpp la fi nekkal mm. di ñaawlu loolu te xam ni également lépp looy def day jeex mm-hmm. te xale yi nga xamante ñoo fi nekk war nu remplacer la dinañ nekk loo xamante ni souvenir la boo xam ne kenn du ko kenn du ko rafetlu mm. alors euh, xeex ni ñu ko waxee yàgg na ci assemblée nationale dafa mel ni xeexu politique bi moom la ñuy transférer foofu est-ce que euh, jotul tamit député yi ñoom ñu fàttaliku dëgg-dëgg lan mooy seen mission. waaw xam nga député yi ni ñu koy doxalee fii Sénégal il faut nga far ci benn parti. te parti bi également mooy choisir ay député. Mm-hmm. te ki la fal ki la ki la tànn. peuple bi fal la. Mm-hmm. boo ñëwee da koy déglu. déglu dañu am lii de conduite ba pare nag mu am loo xamante ni dafa am parce que situation politique Sénégal dafa leerul hmm. affaire yu troisième mandat bi ñuy wax leerul te loolu dafa dem ba assemblée. dafa ñëw assemblée lépp lu ñuy def lu ku ku jóg warul def lii te Macky Sall waxu ci te moom tamit gestes yi muy def mu ngi prouvé da koy def ëllëg hmm. loolu nag mu nekk confusion boo xamante ne nii moo indi situation de de li nga xamante ni du du du man li ma xalaat mooy député boo nekkee ak moom mu ngeen bokk législature day bokk ci ñi nga xam ne ñu nga gën a fonk la. parce que da ngeen bokk liggéeyandoo ay jàppandoo si affaire Sénégal. loolu mooy schéma bi. à tel point que euh, am naa yaakaar daal euh, mënoon nañ ko éviter. boo xamante ne nii ainsi de suite waaye nag loo gis dafa am fu muy commencé parce que. dëkk bi yàlla dafa def bu demee ba tàng dafa am ñoo kilifa yoo xam ne dañuy jóg wax ku mel ni xalif généraux yi ñu ngi leen di déglu mu mel ni am na ay association ak yooyu xamante ni ñu ngi leen di déglu kon boog am naa yaakaar ni loolu dañ ko war a rafetal te su ma sañoon daal Macky sàll leeral situation politique bi lu ñuy gën di dem tey ji ay dóorante la ëllëg ak si biir dama ragal leneen dugg ci biir moo xam ne dañ koy alors ci mbir mi sax euh, wax na si si conseil des ministre bu mercredi passé euh, mu ne na yoon def liggéeyam. loolu nag euh, yemoo ak police euh, dem taxaw ci buntu kër Serigne Moustapha ñuy annoncé sax ay perquisition euh, peut-être émission bi ñu ngi koy enregistré alxamis dimanche lay jàll fii ak dimanche xamaguñu liy xew waaye daal bu fekkente ni dara xewagul foofu lañ ci tolloo mooy ne police mi ngi woon buntu kër Serigne Moustapha te ñu ngi annoncé ay perquisition ngir jàpp député yi nga xam ne ñoom la ñu njortu ne ñoo ngi ci kër Serigne Moustapha yi genn làqatu loolu ragaloo mu jur fitna ci réew mi. ku xam Serigne Moustapha tam xam ne kenn du ko jam naa ni. voilà loolu loolu erreur bu metti la erreur la boo xamante ne nii Macky Sall la teggi tànkam te bañ a continuer mu nekkee Serigne Moustapha man xalaat naa ni du yabal ay nit naan leen demal dóor jigéen parce que niveau am ay jigéen yu nekk moom. di du ko def. Mm. mais c'est nit ki bu fekkee da am loo gëm. nga tooñ ko yow yaa jógal sa bopp fayal ko. Mm. kooku sax day jékki-jékki rek jaaxle siita léegi nag bu fekkee sax sëriñ Moustapha yedd leen ci loolu yedd leen ci loolu ma a dee moom tey jii euh, Macky Sall defe naa li mu waroon def mm. mooy def de telle sorte que dugganteeg jàppale mu Moustapha sëriñ mu ne nekku sa taalibe yi de nekk nañu ay député lii ak lii ak lii def nañ ko léegi nag dama bëggoon nga ñu dem wuy par ñu wuy ji yoon. ñu pacifier yëf yi ainsi de waaye jël ay soldats mais jubóowuñu ñoom ñaar. ah jubóowuñu ñaar mais bu Sénégal yi la ëpp doole. ñoom ñëpp Sénégal lañ fi nekk Sénégal li ëpp doole jar na ko. Hmm. léegi nag loolu bu amee ñu mën a toog wax waxante dëgg mu nekk loo xamante ne nii dina may fay yëf yi. waaye dem dem jël ay. politique bi lañ nar a transféré foofu de. maa la ko wax jël ay gendarme yóbbu fële ñii jël ay lii ak yooyu yooyu na arrêté système am bii mu nekkee te leeral boppu Sénégalais yi ne leen man lii laa waxoon. lii laa koy respecté et tout ça loolu bu ñu ko defee calme am. assemblée nekk ci jàmm. waaye di def ay confusion ak yooyu yooyu attention parce que man li may ragal nag. Mm. Euh, doy na waar parce que tey jii. ñëpp xam nañ ni dëkk yi ñu wër yëpp. situation bu mel nii lañ amoon ba militaire yi dugg ci. Mhm. ah lii lii réew mu pëccëxoo. lii lii réew mu pëccëxoo nag bu amee il faut que mu am ku jóg. Mhm. profité parce que tey jii pouvoir bi dafa nekk ci tali bi. Mhm. ku ko jox forme. waaw léegi nag am nañ yoo xamante ni ay points yu am importance mu ngi mel ni football bi. amul kenn koo xamante contre na Sadio Mané wala quelque chose nu ñu mën a defee. ainsi si donc am na loo xam mën nañ ci jubóo mm-hmm. waaye politique bi nag bu fekkee da nga ñëw nag euh, xam ni yàlla moo la fal mm-hmm. te ñun suñu chance sax mooy dañu gëm yàlla mm-hmm. lu am ñu ne yàlla moo def lii yàlla moo ko lii à tel point que problème bi dina nekk loo xamante ne nii euh, mën nañ ko mën nañ trouver solution pour fay ko waaye am na yoo xamante ne nii aussi boo ci duggee di exagérer di wax naan maa yor doole ji maa yor ak kenn yorul doole devant la peuple personne n'est fort xam nañ ci dara. ñun dañ ko exerce dañ ko def. man ñaata yoon lañ ma jàpp ñaata yoon lañ ma kii kenn mënul changer. liggéey naa nekk naa député politique ba retraité jël relais bi jox ko xale yi. nekkaat sama yeneen activité di évoluer. Sénégal moo ñu ko jaral. Hmm. loolu moo ci nekk. Hmm. alors ñu desaat assemblée nationale yéen coppite nga jàpp ni Maître jot nañu indi ko fa ndax tam assemblée bi bu weesoo xeex bi rek problème sax am na ci dem nañu tey ba askan wi presque gisatuñu utilité am ndax niñ koy waxee. politique daal lañ fa transféré ni ñuy xëy na dundee ak parti noonu la ñuy dundee ak euh, député yi ci assemblée nationale te seen role leneen la euh, ñu njortu ne sax taxawaay bi war dëgg ci contrôler par exemple l'exécutif dañuy jëfandikoo alalu réew mi loolu amul benn taxawaay boo xam ne nit mun na si teg loxo euh, opposition bi naam seen teewaay foofu yokku na presque am nañu cohabitation mais des na impact bu mu waroon am amu ko tey lan nga jàpp ne war nañ ko soppi assemblée en tant que ancien député ba mu nekk assemblée bu gën a efficace boo xam ne peuple bi dina si retrouver wu. Euh, d'abord assemblée bi ni ma ko gisee au départ dafa am jaxasoo bu metti ni ñu choisir député yi ni ñuy organiser liggéeyu assemblée bi yooyu yëpp ba ñu ngi doon wax xam nga règlement intérieur bi dañ ko dañ ah. mu nekk loo xamante ni assemblée bi du régler dara te ñëpp xam nañ ni assemblée bi defe naa ni quinze mois moo fi defe parce que yeneen élection day am. Mhm. képp ku ñu fal président boo ñëwee da ngay def beneen. assemblée da gisu assemblée nationale loolu nag mooy mooy situation bi ba tax na kon tey jii euh, awma yaakaar ni assemblée bi comment mën a dara parce que enjeu bi moo doy waar. intérêt yi ñoo di divergent hmm. te ki nga xam ne moo yor lépp moom aussi bëggul bàyyi def ko bëgg a continuer loolu mooy confusion bi hmm. loolu bu réglé woon rek problème bi réglé bon ba tax na kon man am naa yaakaar ni euh, vraiment dans 15 mois dinañ am beneen assemblée. dañuy am beneen assemblée nationale parce que amul kenn boo position bi gagné du nangu mu am ay 80 députés hmm. ñu fi nekkoon ah bu fekkoon ni pouvoir bi aussi moo gagné du nangu encore yeneen 80 kon boog loolu mooy amaat te li nga xamante ne ni mooy choix nit ñi ngi fa waroon def mm. nekk na choix boo xam dañ ko forcé woon au départ mu ñu politique ko mm. politique boobu nag moo continuer assemblée nationale bay yàqase situation bi kon boog changement gëwma ko mu am ci assemblée bi il faut que élection yi ñëw rek ñu choisiraat beneen assemblée nationale mu nekk lu leer. Mm. Sénégal tàmmoon nañu majorité euh, pouvoir di ko am majorité absolue sax boo xam ni vraiment dafay nekk à l'aise peut-être différence bu ndaw bi yoon la am opposition bi xaw a tolloo doole ak opposition euh, pouvoir bi doonte amul trop trop effet bi may wax solution sànq est-ce que. maa ngi doon bëgg a junj cohabitation maanaam tey assemblée yoroon euh, position bu yoroon doole assemblée jàpp nga ne dina indi changement ci ni réew mi di doxee. waaw est-ce que loolu itam mën naa am Sénégal. <laughs> non pour mu am léegi pour le moment parce que départ bi moo faussé. no pour beneen législature. législature est-ce que mun na nekk solution pour que assemblée bi gën a efficace. voilà beneen législature bu amee. Mm. en fonction position yi. il faudrait impérativement ñu xam ni. benn côté rek mënul jël lépp di ko continuer na il faut que mu am une opposition qui s'oppose il faut que mu am ay euh, gouvernement boo xam mooy gouverner mm. te ku ci nekk na respecte charte bi mm. justice bi dugg ci mm. ainsi de suite ñu mën a am loo xamante ni dina mën a évoluer mais tel que yëf yi bu amee il faut que bu assemblée bi tasee ba ñu dem ba sénégalais yi def choix soit que ñu choisir euh, euh, comment dire opposition bi am député yoo xam dara dootul ma leen gérer mm. automatiquement ñoom tamit ñu commencé di gouverner mais nag gouverner ne veut rien mm. parce que boo defee loo xamante ne neexul peuple bi mm. peuple bi day opposé wu comme ni ñu opposé woo ak Macky Sall loolu mooy situation bi à tel point que daal ci démocratie la ñu nekk dañ jouer les règles de la démocratie ki gagné respecté ki gañewul mu nekk loo xamante ne nii euh, lu am solo justice bi daal Euh, nekk koo xamante ne nii amul kumba am ndey ak kumba amul ndey ba Sénégalais yi gis ci seen bopp dina nekk loo xamante ni dina dina dina dina oyofal bu bari indi jàmm beneen débat bu jóg si mbiru ami njaay bi ak assemblée aussi mooy nekk kilifa diine di politique. Euh, indi na coow Sénégal te Serigne Moustapha itam du tey la Moussa politique ak euh, waajuram bi yàlla na ko yàlla yërëm Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum euh, ñu yàgg lool ci wàllu politique ba amoon sax parti bu yàgg a yàgg mais ñaare jafe-jafe dafay am bu fekkente ni kilifa diine bi dafa nekk en même temps kilifa politique ndax ki koy wax ci wàllu politique mën na viser homme politique bi mais benn nit bi la donc forcément dafay laal sëriñ bi boobu debaa itam yaakaaroon ne jot nañu ñu régler ko Sénégal. waaw xam nga dafa am deux il foog que ma euh, ñu xool euh, origine sëriñ yi dugg ci politique. ak ni ñuy évoluer. parce que comme ni nga ko waxee sëriñ kii sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane. Mhm. créé na fi parti. mais Gaynde Fatma it nekkoon na PDS. mi ngi politique ba tey sax. ba léegi Gaynde Fatma mooy papu Gaynde ah, Fatma. ah non ku mag ki d' accord d' accord ku ma ki laa wax. kooku mu ngi ci woon ba defe naa départ PDS. Mm. moo ko financé. parce que am na noo xamante gise woon na ko réew mi. Mm. automatiquement euh, d' accord ci woon mu évolué ce qui veut dire que euh, comme ni ko waxee bu ñu xoolee seen passé. Mm. nga jël ku mel ni Serigne Touba tubaab yi. Euh, di ko xeex muy xeex ak tubaab mm. mais mësul jël gànnaay mm. mësul jël dara jàkkaarloog tubaab bi mm. ci ak xam-xam ak idée ak diine la leen daane ba tey ji yëf yi ba mu jeexee it màggalu Touba ay millions de personnes ñoo fay dem am loolu victoire euh, démarche yu euh, Serigne Malick xalif général des des des des kii des Tidjane. moom tamit économie mi yëpp ci mbéy mi la ko tegoon. Hmm. tabax ay jàkka ba pare ci conscience nit ñi. Hmm. la doon évoluer ba nga xamante ne nii. Hmm. tey jii moom tamit am na raison sur toute la ligne. parce que Sénégal diine ji dafa gën a sax. gëm-gëm bi gën a sax. te loolu bu nekkee sa xol day wàññi lu baree bari ay banditisme yooyu yooyu. kon boog sëriñ si am nañu rôle bu ñuy joué. ci politique léegi nag dafa am ay choix yoo xamante ne nii dëgg la parce que tey jii bu fekkoon sëriñ yi sëriñ Moustapha Sy dafa ñëw. Mm. actuellement moo ci gën a nekk en vue. Mm-hmm. daal di ñëw daal di ne man suma ma faloo damay def euh, nu mu tuddati euh, régime boo xamante ni islamique la ak ñoom seen yooyu kooku dina dajeeg peuple sénégalais yi. ñoom ñu wax ko dëgg waaye kenn mënul empêcher murit wala sëriñ mu def politique te politique bi bu koy def it daf def de telle sorte ko bu mu bokk dara ak rôle sëriñam mais loolu taalibe yi duñ ko mën a discerner parce que kay wax ak moom homme politique bi lay waxal. Euh, tey président Macky Sall bu doon wax ak Serigne Moustapha homme politique bi lay waxal parce que chef de parti la te moom tam yenn saay mu génn wax waxi politique. léegi nag bu ñu ko tontoo. taalibe yi gis seen bopp ne tontu gi xëy na yan wul maanaa te amaana sax lañ koy wax wax nañ lu ko raw homme politique. Mhm. te dara mujj ci parce que Sénégal moom waxante lu ñaaw ci politique léegi du fi dara. loolu mooy problème bi. léegi nag dafa am day mel ni yeneen dëkk yi nga xamante ne nii euh, dafa am ay non seulement ay terroristes la leen mm-hmm. tuddee ñoo xamante ne nii li ñuy exprimer xam ne nii régime bi mënuñu ko def. Mm-hmm. ñu jël arme yi. Mm-hmm. di xeex ak ñoom di te loolu. àgg ñëpp dañ ci war a gis seen bopp. yëpp voilà loolu mooy mooy situation léegi nag man ci trouve que ni nekk na loo xamante ne nii euh, amul Sénégal te sénégalais yi dëgg la. taalibe yi lu ñuy gën di évoluer parce que suñu temps ña daan voté mm. ak ñun suñu ak lii ma gis léegi Sénégal yi ñu koy voté mm. différence am na mm. te gis gawma benn sëriñ joxe ordre ne leen ma diw ñu ànd ak moom kon boog Sénégalais yi ci seen xel déjà am na différence boo xam ne def nañ ko sëriñ bi ak li nga xamante ni mooy politique def nañ ko ci seen xel mm-hmm. am na nag ñoo xamante ne nii peut-être euh, excès boo gis rek dina am ñoo xam ne duñu comprendre mais am naa yaakaar ni loolu mënul jaxase Sénégal parce que dañ ko vivre woon au départ gis kaaw Serigne Touba mm. Alaaji Maalik ak yëpp kon tey jii ku ci bëgg wéeru ci religion bi pour bëgg a faire de tell sorte que gérer pouvoir bi kooku day day am problème parce que Sénégal yi seen bopp am nañ maturité boo xamante ni loolu duñ ko mën a ndax solution bi kon nekkul homme politique yi xoolaat seen bopp am yoo xam ne dañ ko ciy seppi waxante yu ñaaw yeeg yooyu dañ. parce que koo fi tudd sëriñam moom wax ko loo ko war te wax day yëngal réew mi. loolu laa ko wax parce que léegi du dara sax mais balaa ngay àgg ci sëriñ léegi sa waajur nañ ko wax dara rek kenn ko nangu léegi kon sëriñ si ci seen bopp. Hmm. Euh, bu ñu toogee ba finalement gis nañu euh, ne dëkk bi nii lañ ko mën a doxalee. ñu ne dañuy créer politique am seen programme bi évoluer kooku dafa nekk loo xam ne dañ ko war a saluer parce que am na dëkk yoo xam dañuy tere politiciens yi euh, sëriñ si def ci politique ñooñ bu ñu amee leen naqari seen fetal la ñuy di xeex ak loolu mooy loolu mooy différence mm-hmm. fii au moins buñ leen autorisé ñu bokk ci yëf yi mm-hmm. mais dinañ am responsabilité mm-hmm. dinañ am lu ñuy doxale te dina am noo xamante ne nii duñ ko def duñ fi nekk naan ay terroriste la ñuy doon ak di bombarder ay lieux parce que ci mbubboo l'islam pour di def yenn yi loolu man gis naa ni Sénégal sur ce plan là c'est positif te képp boo xamante nii yaa ngi nekk sëriñ mënoo utiliser li nga nekk pour permettre nga jël pouvoir bi wala nit ñi topp la si loolu loolu moom defe naa ni Sénégal loolu moom may chance lu mën ci daal. alors ñu natt tolluwaay réew mi ci wàllu politique wax tuuti ci actualité gannaaw démb ak tey la ñu wax tey noo jàngatee euh, situation politique bu Sénégal. situation politique bu Sénégal ak nuñ ko mën a waxee mu ngi nekk loo xamante ne nii dafa yàgg te mu ngi avancé te dañu ay références boo jëlee ñu mel ni Senghor Mamadou Dia ba ci Abdou Diouf ci nekk. Euh, nekk na loo xamante ni def nañ ko waaye nag euh, politique bi fi mu ne li tax mu xaw a doy waar euh, xale yi nga xamante dañ ci dugg dañu xool ni Afrique suñu dëkk yi boo gisee nag ñu tardé tubaab yi nga xam ñoo ñu moomoon ba tey ñoo fi toog di évoluer sur la vie te loolu ñun bi ñuy def politique xamoon nañ ko waaye dafa am loo xamante ni dañ ko waroon commencé. mooy am nañu indépendance. am nañu président. am nañu régime. mais dañu waroon def de telle sorte que loolu nga xamante ne nii am nañ ko yëpp ñu fexe ba retrouver wu ci li nga xamante mooy suñu koom-koom ñu am ko waaye dëkk bi day dox. ñu xool duñ lay wax croissance rek. Mm-hmm. mooy tout ça li ci ëpp dañ koy jël yóbbu par les askan du ko yëg waaw. rax ci doole suñu xale yi di dugg gaal di dee ci géej gi te bu ñu demee seen dëkk dëkku tubaab yi ñu leen di toroxal di leen def lu nekk léegi nag yooyu yëpp bu ñu ko xoolee ñoo xam ni tey jii seen dëkk bi li tax tubaab yi nekk bi ba moom ko ñoom bu ñu defee li ñu war a def ba jëlaat dëkk bi yor ko yor suñu économie kon dootuñu soxlaat dem à l'étranger loolu mooy changement fondamental loolu moo tax à l'heure actuelle euh, Euh, nu mu si données yi dañu changé. données yi dañu changé parce que xam nañu néocolonialisme bi te dafa am ay nit ñoo xam ne ñoo leen représenté yi te lépp loo jël comme décision ñoom buñ ci dugalu seen loxo automatiquement du sotti loolu nag mooy mooy mooy problème problème boog bi nga xamante nii moo am ba tax na man am naa yaakaar ni euh, ku mel ni jeunes yi nga xamante dañu dugg ci politique yi dangay xool ku mel ni Ousmane ko bon Ousmane Sonko kenn xamu ko woon mm-hmm. mais bi nga xamante ni commencé na di dugg ci politique bi ñu commencé di ko indil ay difficulté ay problème mais saa yoo jógee turam gën a dem ainsi de suite yi di ko jox positivement ce qui veut dire que di tey jii euh, ay ay ay jeunes mm. ou bien tuumaal nit et tout ça ne marche pas comme nous voulons te tey jii malgré que affaire Adji Sarr bi am na. bu ñu defoon sondage bi tey bi nga xool Sonko ni ma leen di rawee. koo xamante ni yaa ngi dem te saa yoo defee dara bu ngeen demee ci sondage yi ñu dépassé la. kon boog ce qui veut dire que yow da war a xoolaat si bopp. bon politique bi nag en fin de compte aussi ay tuumaal dafa da da da fi bari. man ba may ba may politique. ma jóge woon France def sama diplôme yëpp def logistique et transport dañ ma ne woon man maay lakk oto yi maay bombardé oto yi maay toj oto yi jàpp ma fi dugal ma fi et tout ça ba xëy suba ñu bàyyi ma ne woon kii daal ainsi de suite donc suñu suñu responsable politique yi di accuser nit di ko sosal wala boobu dafa nekk loo xamante ne nii du amul avenir mm. parce que ñi nga amal affaire dañoo xam àddina mm. te léegi loo wax fii tey balaa ngoon a jot Sénégal yëpp yëpp. monsieur foofu laa lay laajee foo foo seen confrontation Macky Sall ak Ousmane Sonko. ndax mbiram euh, taalibe Serigne Moustapha yi mën naa dem ba Sonko dugg ci ndax ci coalition bi mu bokk lañ bokk mu yeewi askan wi. mu mel ni seen xeex jeexagul. bon euh, diggante bi Sonko Ousmane Sonko. ak Macky bo Macky Sall problème am mooy dafa waxoon mu war a jeex ne dootuma ko def dootuma lii dootuma laa. mandat bi mandat bi. ce qui veut dire koo xamante ne nii li nga wax boo ko respecté quinze mois moo la fi defee. Mm. bokk la ki nga xamante ne nii mu ngi jóg te sénégalais yu bari surtout jeunes yi dañ ko teg bopp kon bokk yëf yi bokkul. këree bu forcé. dina am perturbation bu metti Sénégal te Sonko buñ ko faagalalee dina am situation bu metti Sénégal kon bokk yow bu fekkee ni ki nga nekkal dafa am ci lu mu jàpp daal di ne yaa waxoon lii ba ñu voté constitution bu bees mm. nga xëy suba bëgg ci dugaat bëgg a évoluer kooku amul benn chance mën a réussir Sénégal te Macky ku ñu gis xam na ni quand euh, suñu diggante maa doon kilifa ci parti so euh, parti démocrate bi mm-hmm. bi ma nekkee responsable des cadres ñuy mm-hmm. évoluer demoon ba nekk euh, son conseil spécial mm-hmm. xam naa bu baax xam këram xam yëppam mais loolu nag du dëgg bu ñëwee nga wax ko bu la accepté ci loolu boo waxee dëgg ñu jox la ndomb tànk boo waxee lu dul dëgg loo xamante ni kii na. Euh, dara arrangé wu leen ñu teg de l'autre côté. waaye suñu compagnie gi mais yàlla defal nañu ba pare. Mm. soxlawuñu ay ndombo tànk yooyu mm. dépassé nañ ko. Mm. donc suñu ak suñu borom ak réew mi moo ñu intéressé. lépp loo xam ne day yëkkati réew mi. fexe ba jeunesse yi ngeen nekk ak yéen ñi ngeen di liggéey mën a dem. mu nekk loo xamante ni teg na ba tax euh, journaliste bi nga xamante ni mooy Pape Alé. mu ngi nii ñu koy sonal di ko def lu nekk et tout cela te yéen da ngeen am courage di def liggéey bu am solo Sénégal bu ñu ko respecté da ngeen ci jouer un rôle extrêmement important mais ku mel noonu boo ko jàppee di foog ni da ngay jéem a tiital journaliste yi ak mais tu perds ton temps loolu mooy situation bi nga xamante ne nii vraiment war nañ ko xoolaat je crois que nii Macky Sall sëgam yàlla def na mu jeexal bu mu forcé bu mu def loo xamante ni ëllëg ak si biir da koy regretter àddina jaru ko daal loolu daal laa mënoon a wax. kon daal da nga jàpp ne euh, confrontation bi tàmbali diggante ñoom ñaar euh, ku ci perte buy am Macky Sall lay doon. Macky Sall hmm. parce que peuple bi armée mënu leen téye police mënu leen téye gendarmerie mënu leen téye te li ci nekk ba nekk ci policiers yi ci boppam ak gendarmerie ak armée coono yi yi Sénégalais yi am dañu am. problème mu courant am nañ ko problème mu ndox am nañ ko problème mu ceeb am nañ ko mm-hmm. problème mu ñëpp am nañ ko. Mm-hmm. seen liggéey moo tax ñu nekk foofu rek. Mm-hmm. koo xam ne seen liggéey moo tax nga nekk fa am na niveau boo dafa ak. kon boobu loolu il faut nga xoolaat. nekk du leer alors euh, maître Cheikh Tidiane yow euh, euh, yaa nekkoon président cadre libéraux yi nekkoon député tey nga euh, dellusiwaat ci sa métier de base muy expert maritime xëy na sax li ñuy wax ni bokkul ci thème bi mais nga am loo soulevé ñu jàpp ni itam jaadu na sénégalais yi xam lan moo ci nekk dëgg-dëgg ndax itam fagaru moom moo gën faju nga junjoo sànq ay jafe-jafe ci wàllu géej gi wàllu dem gi ak dikk gi est-ce mun nga ñu ci indil ay ay leeral euh, peut-être ba tey pour ñu nekk ci démb ak tey nga wax ñu la amoon démb ak tey li am ba tax nga nga jàpp ne da war a alerter. waa loolu sax balaa ñu siy àgg. dafa am benn euh, conseil boo xam ne dama koy jox xale yi les jeunes xam nga man dama def sama itinéraire am samay diplôme nekk ci di liggéey nekk fi député directeur général et tout cela waaye loolu ba mu jeexee dama am sama métier. métier boobu moo ma permettre ma inscrire par des experts nekk expert maritime kon boobu jeunesse bi ci boppam nañu jiital xam-xam di jàng ñi seen jàng solo yu ñu métier comme sa bu lii yëpp jeexee ñu delluwaat fa ñu nekkoon. léegi politique mooy métier bi gën a fay. léegi nag politique boobu it moo gis tey jii gis naa suñu moroom yu bari politique rek lañ jiitaloon ci àdduna tey jii bi ñu bokk bokkutul ci dara situation bi ñu nekk dafa doy waar dafa doy waar combien de fois lañ lay téléphoné awma dépense awma lii awma laa c'est parce que au départ xalaatuñu woon ni lii ñu yor day jeex te bés bu jeexee il faut ñu delluwaat ci réalité bi man yaa nga fekk sama cabinet su ma amul woon euh, xalaat boobu def ko légaluma woon et tout cela kon lii may def du ma ko mën a def hmm. loolu mooy première euh, chose bi nga xam ne dama war a conseiller les jeunes balaa ñuy dugg ci politique beeg yooyu ñu bañ ko def métier hmm. di jàng mën a évoluer hmm. deuxième chose bi mooy métier bi ma yor lépp lu bokk ci géej di fa aw lépp lu bokk ci ngelaw bi di fa aw avion lépp lu bokk ci tali bi di ci aw muy cargaison yooyu man expert laa ci ñoo koy yor pour xam ainsi de suite lii fii lay jaar wala lii fii lay jaar logistique bi nag moo lay permettre bu fekkee Japon ca àll ba ñu ngi fay liggéey ay yëf nga xëy suba ne da koy indi Sénégal fi muy aw ba ak si nga xam ne prix bi du cher loolu it mooy logistique dañ ko xam léegi nag boo constaté que ni lii nga xamante ni dañ koy jëfandikoo ci àddina mooy euh, li ñuy utiliser li mooy lekk gi naan bi faju bi pharmacie bi yëpp day jógee bitim réew di ñëw te liy jógee bitim réew di ñëw boo ko xoolee du aw ci du aw ci ngelaw li avion mënul indi yëpp tali bi am liaison bu mu mën a ñëw bu xasee ba ñëw ba fii kay tali mën na ci dem mhm. li koy def mooy géej gi mhm. te géej gi dafa am loo xam lu am solo la benn xam nga tey jii géej gi lii nga xamante ne nii jeunes yi wala nappkat yi am nañ problème. Mm. bu ñu jógee fii di dem Mauritanie. Mm. bu ñu àggee fenn rek ñu commencé leen seetal. Mm. parce que amuñu loo xamante mooy matérialiser. pour mën a ni. seen frontière fii la yem wala quelque géej gi dafa am yoon yoo xam ne boo fa awee sa bateau mën na mbëkk xeer te bu mbëkkee xeer. day am répercussion bu fekkee pétrole la def day tas ci réew mi et tout ce faar Ngor bii nga Mamel bii nga gis am na plus de cent ans boo gisee avion yi di ñëw di dugg si nekk na loo xamante ni si positif mais situation bi mooy matériel bi nga ko doon defee mooy am na benn bateau bu tudd Samba Laobé Fall moom la ñu tuddee baliseur moom mooy def bu yi fii manque yi nga xamante ni mooy permettre bateau yi ñu xam fi ñuy jaar. ba euh, euh, mooy tracé voie maritime yi. village yi ki nu mu fleuve bi ba ci yëpp moo koy déterminer bateau boobu dafa indispensable tubaab yi bañ koy créer ay 1800. Hmm. loolu moo tax Afrique yëpp la géré woon. moom moo fi nekk ba léegi. bateau boobu yàqu woon na ba ñu jëndaat beneen bateau. tuddee ko Sambalaw Befal. bateau boobu nag dañ ko liggéey benn liggéey boo xamante ne alin aluminium lañ ko liggéey te aluminium boobu ñu ko liggéeyee dafa am technique spéciale yoo xam ne ñoo koy liggéey te Sénégal amagu ko sëgam Sénégal amagu ko nag léegi euh, te bateau bi nga xamante moo fi nekk toujours day jël ay doomu aadama ñu war a dem intervenir liggéey ci géej gi te bateau boobu di jour au bi mën na surux ndax la ndax euh, euh, sécurité bi mu war a am ak ni mu mën a kiwee dafa dafa dafa nëb yàqu ba nga xamante kenn mënu ko utiliser. kon boo bato màgget daal. bato bi moo màgget. d'accord léegi nag loolu moo daloon bato bi nga xamante ne nii mooy Aline Sitoé Diatta mooy noonu la Joola. bi nga xamante ne nii dafa suru ko. Hmm. bato bi dafa génn atelier di dawee benn moteur di soof hmm. ñu ne dañ koy yóbbu pour raison politique. Hmm. mais ba ñu demee bato ba dafa surux plus de 2000 personnes des fois. bii tamit buñ ci jógul plus de personne tout le personne boo xam moo mooy surux ëllëg mm. mu nekk une situation boo xam ne catastrophique moo tax may avertir le président de la république ak le directeur du port nañ jël seen responsabilité changer bateau bi mm. defar de telle sorte que façade maritime bi nga xam mooy suñu doole au moment où pétrole bi mu ngi taxaw mm. gaz bi mu ngi taxaw mais ñooñu ni ñuy duggee ak ni ñuy génne baliseur boobu bateau boobu moo koy liggéey te bateau bi màgget na dañ ko war a defar moo tax may def appel ne leen ëllëg ak si biir buñ ko defarul ba ëllëg ak si biir jéye am fi ñi nga xamante ñooy responsabilité bi dinañ rendre compte balaa loolu di am nag nañu changer bateau boobu te lu muy jar bu ñu demee Chine mën nañu am bateau bi bu ñu demee France mën nañu am bateau bi fu ñu mënti dem mën nañu ko am kon boog loolu dafay répercuter ci suñu nekkin parce que bu fekkee bëgg nga importer ceeb ceeb bi ñëw ba fii. Hmm. batt ba surux nooy def pétrole bi nga xamante ni nii parce que tali bi muy aw ak fii nga xamante war na fa dem. Hmm. automatiquement euh, nekk na loo xamante ne nii kenn maîtriser kon bateau boobu il faut que changer ko. Hmm. liggéey ko sëgam Macky Sall ngi defar terre pour nit ñi di dem ak dikk. BRT bi mu ngi koy defar pour nit ñi dem dikk géej gi moo leen ëpp importance. géej googu li koy mën a rek mooy ñu def de telle sorte ko ñu def fa benn matériel boo xamante ne nii ça ne coûte ñu jënd ko daal di ko def mu nekk ainsi de te bateau boobu ñu ko jëlee ba yóbbu ko il faut ñu amaat bateau bu ndaw boo xamante ne nii mooy def liggéey bi. parce que en permanence dañuy jékki-jékki ngay daw fenn rek mouvement suuf si suufu géej gi mm. dugg ba. bu fekkee ni xootaayu géej gi ay 7 mètres la woon xóotaayu géej gi 3 mètres la bateau bu fa aw day surux moo indi ay problème yu grave répercuté sur la santé répercuté wu sur li ñuy lekkee répercuté sur c'est pour cela en tant que expert maritime mais attirer attention président bi pour mu jël ay disposition balaa loolu day am kon daal su ma la déggee baliseur bi fi nekk tey sàmbalaw Laobé Fall. waaw bu xëyoon tey nekkat ca paan rek. waaw euh, géej gi dafay léppay taxaw. léppay taxaw dootuñu am lu rëdd yoon yi ba bato yi ñëw xam fan la ñu war a jaar. maa la ko wax. d'accord transport personnel beeg yëpp day taxaw. lu ñu def dañ koy ainsi de suite euh, dañ koy dañ koy jéggaane wala loo xamante ni ba catastrophe am fi te personnel ba fay liggéey mais dina jël ay plus de vingt cinq personnes. Mm. ñooñu ba bato bi suuxee en pleine bateau bi kiiwul mais ñëppay dee te personnel boobu de ay nit lañu yoo xam ne dañu liggéey jàng li ñuy jàng voilà la situation bi nga xamante ni mooy appel bi nga xamante ni nii moom la ñu war a def c'est pour cela euh, ma lay remercier mm. pour vraiment Euh, lii nga xamante ne nii fa lañ koy jooyee. Ah, loolu lu amal askan wi njëriñ la lool rek moo ñu fi euh, teg réew mi waxtaanee politique baax na waaye nag am na lu ëpp solo politique. te lii ci la bokk. mais est-ce que bu ko tegee ci norme en tant qu'expert maritime euh, benn baliseur rek war nañ ko am ndax waruñoo woon am beneen donte bu baax la ñu yor mais ñu am secours ndax paan day am. xam nga dama mais ni nga comprendre yëf yi noonu la yëf yi demee. Hmm. normal lu ñuy am benn baliseur. ndax bato mën naa bees xëy paan. mën na bees xëy paan. comme mën na màgget xëy bii nag dafa dee. Hmm. kon ce qui veut bu ñu koy génn ci géej gi rek muy dee kon tey jii activité maritime bi day arrêté. Hmm. bato yi dootuñu xam fu ñuy jaar ainsi am na benn conteneur boo xamante boo ko jëlee Europe. di ko indi boo ko yóbboo Guinée Bissau xam nga bi ñaata lay coûté. ay millions la lay parce que amuñu système. boo xamante ni signalisation yi maritime yeeg yooyu yëpp amuñu ko profondeur yeeg yooyu yëpp amuñu ko mais boo koy indi Sénégal mais du la coûter sax 500000 parce que am nañu loolu yëpp mooy permettre ñu mën a loolu donc dafa nekk ci schéma boo xamante ne. kon dem feneen moo gën a risqué que ñëw Sénégal. non cest à Sénégal. position bi mu am tey jii. parce que am na d'accord ah, waaw yoon yomb. moo gën a yomb que mu dem feneen foo xamante ne amu ko. loolu nag mooy situation hmm. am na ñu boo xamante ne nii sax. moom militaire yee ko yor et tout mm. cela mais kooku c'est ay stratégie de guerre ak yooyu mm. yooyu la ça n'a rien à sur le volet commercial mm-hmm. donc loolu daal euh, am na yaakaar ni nekk na lu am solo mm-hmm. te buñ ko deful ëllëg ak si mm-hmm. nit ñi dinañ jooy jooy boo xamante ne nii parce que bële diggante Casamance ak Dakar la amee kii nag sur l'étendue du loolu mooy situation bi à tel lu ñu mën ci def rek dañu war a dem lijjanti bato bi le plus tôt possible ñu mën ko teg ci yoon bi mën a assurer sécurité maritime bi mooy suñu doole te mooy ñu permettre ëllëg ci biir lu mënti am rek Sénégal bokk parmi les nations les plus comment dire en vue et sur le plan de sécurité. est-ce que yéen acteurs yi jéem ngeen cee jokkoo ak kilifa yi attiré ngeen seen attention ci situation bi ak peut-être danger bi bi ñuy risqué nii. boo gisee ñu ñëw ci rajo yi. Hmm. di ko wax. Hmm. lu ne def nañ ko. Ah bind nañu. wax nañu lu ne def nañ ko ñu ne batt rek appel d'offre bi di ainsi parce que batt bii fi am bi nga xam ne bële ñu tubaab yi bàyyi woon yàqu na dañ ne woon xaalis bi amuñu ko ba ñu dajee réunion ma convoqué leen ñu daje réunion dama leen ni boobu Djibo moo doon ministre de la pêche xam moo doon responsable waaw maritime ma expliqué ko président Djibo Ka yàlla na yàlla seral ay yaxam mu jël ay responsabilités noonu la woowee président bi attirer son attention tout de suite mu ne ma nag man financement bi parce que état bi rek mënul financer yëpp ma ne ko COSEC hmm. am na partie boo xamante ni mën na ko financer port am na une partie bi mën na ko financer hmm. ñu dajale boobu am à peu près quatre ou cinq milliards hmm. ñu dem defal ko bato bi à peu près ñaata lay jar bariwul bato bi léegi bu ñu ko réparé ay trois milliards cinq lay jar buñ ko bu mais bu buñ ko amee il faut ñu am beneen bateau bu ndaw boo xam ne dina mën a def liggéey bi en attendant bateau ba léegi pare léegi nag solution bi moo doon bateau yooyu ñu wut ci ñaar ba ñett kooxla bi taxawee nga indi beneen jël bale fekk liggéey bi du arrêté te ñëpp nañ mën a liggéey doo ainsi de ñu mën a évoluer mën a kii hmm. loolu moo am na solo Maître Cheikh Tidiane Touré ñu bàyyi la rek nga tàggoo euh, ci waxtaan wi nga xam ne laytaay wi moo nekkoon li xew ci assemblée nationale en tant que ancien député xëy na lii ñu mujjee wax nii xew-xew la bu ñu dab aussi ñu waroon a transmettre message bi ngir ñu ko war a dégg dégg ko ñu bàyyi la nga nga tàggoo ak auditeurs yi. waaw kon euh, ni ma mën a def rek comme yàlla dafa def ni yéen ci seen bopp euh, journalistes yi dañ leen war a jox cër parce que liggéey bi ngeen di liggéey dafa am solo. parce que tey jii doo gis benn média étatique bu ñëw fii naan la day interview bi wala mais yéen a ngi xool fu dëgg gi nekk ngeen wax ko ak liy jëriñ dëkk bi kon boog dañ leen war a protéger def de telle sorte que fi ngeen toll woon ñu jox leen des moyens ngeen évoluer mu nekk loo xamante ni jëmale Sénégal kër te képp ku fi def lu mu war def gis naa leen am ngeen fit woo xamante ne nii du ngeen ragal kenn te kenn du leen corrompre kenn du leen kii te lépp yéen a ngi koy def ci jàmm ak salaam kon boog ma leen di féliciter di leen encourager dëkk bu bu bu dem sa yoon ca ci presse bi ci journaliste la ñuy rawante parce que lu dul dëgg dañ koy wax lii dëgg ñu wax ko ki nga xamante ne nii deful mu ngi doon def gën a yokk liggéeyam ki nga xamante deful dara daal na négal ma ma ma def dara kon boog di nekk loo xamante ni vraiment mbokk yi kon euh, seen émission démb ak la woon maître Cheikh Tidiane Touré la ñu doon dalal mu nekkoon jiital cadre libéraux yu PDS nekkoon itam député ci assemblée nationale ñu doon waxtaanee xeex bi am tey ak xeex yi fa yàgg am assemblée nationale beeg ni mu bindoo euh, mais également mbiram Amy Ndiaye ñibbi ñuy ragal mu jur leneen ndax euh, li ci xew yépp ñu amoon mbégte lool dalal ko di leen dig daje beneen dimanche incha allah Diawo Diallo mi nekkoon ci jàppandal gi Fatou Thiam ngoom la woon ci kàddu gi ñu yendoog jàmm